ñaari oto yi ñu ne ma oto yi bi ñu dalantee il a fallu ñu indi de gros engins pour ñu gi taqale ñaari oto yi j'imagine la brutalité maanaam méttitu choc bi nga xam ne am na nga dugg ci oto yi nga gis deret ji saaw fu nekk ça veut dire ay nit ñoo xam ne moment boobu am nañu lu leen métti dëgg dëgg dëgg dëgg et loolu encore une fois méttit rek lañ ci mun a am bu lii amee nag suñu borom mooy dogal dëgg la suñu borom lu ko neex lay def dëgg la waaye suñu borom jox nañu ay jumtukaay ngir ñun ñu mën a moytu yenn ci jëye yu mel nii parce que lii kat waratula am ci réew mi juróom-benn fukki nit ak juróom-benn ci list bi ñu ma jox ñu ne ñoo ci ñàkk seen bakkan loolu yal nañu ko yàlla umpale ci at yi ñëw ak at ya ca topp juróom-benn fukk. ak juróom-benn ci liste bi ñu ma jox lañu ñu ma wax ne ñoo ñàkk seen bakkan bi ñu njëkkee def bilan fanweer ak juróom-ñeent la ñu wax waaw fanweer ak juróom-ñeent boo yeggee ba juróom-benn fukk ak juróom-benn ça veut am na ñaar fukk ak juróom-ñaar yu ñàkk seen bakkan après accident bi loolu li koy waral mooy manque de secours bu doy manque d'assistance ci jamono bi ñu ko soxla moo tax ñun dañu mus wax ne ci suñu tali yi dañu war a am ay unité d'intervention rapide yoo xam ne ci tali yi la leen di teg parce que nag nit kuy dawal ak jéye ñoo ànd waaye mënees na ko di fàggu dans la prévention mais également bu jéye bi amee ñu mun leen a taxawu ci lu gaaw gaaw gaaw moo tax ñun ñu préconiser ay unité médicale d'intervention rapide ci RN nationale yëpp mais dañ ne il faut ñu fexe boole ci ab hélicoptère moom la ñuy wax unité médicale héliportée nga xam ne bu jafe-jafe yi amee danañ leen mobiliser ci daan tàng-tàng bi ngir ñu mun a ñëw ñoo ñu nekk ci ay jafe parce que jafe-jafe parce que nag àdduna foofu la toll àdduna fi mu toll faw suñu nguur yi di bàyyi xel tolluwaayu jamono am na ay xalaat yu ñu fi wax Euh, conseil interministériel bu ñu war a taxawal mais conseil interministériel musu fee ñàkk ñaata yoon lañ ko def ci transport donc conclusion yi ñu ngi fi xam nga lan mooy wax ji la ñu tënk ñu jëfe ko lañu tënk ñu fexe ba lu jëm ci wàllu transport ñu jox leen gëdd gi war gëdd gi war mu ngi tàmbalee d'abord ci kiy dawal oto xelam war naa dal kiy dawal oto war naa nekk ci condition yu normal ci wàllu dëkkuwaayam ak këram ñii doon dawal oto bus yi yëpp kenn amu ci contrat de travail monte oto bi quarante millions jëm soixante millions lay jar mais ki nga xam ne moom moom oto bi état wu Sénégal obligé wu ko ne ko da nga war a ñi ciy liggéey nga dalal seen xel moo tax yenn saa yi ñuy jànkoteel ak yenn ci coono chauffeur si war nañu leen protéger benn beneen bi ci des. mooy war nañu fexe ba képp ku war a dawal oto buy jël ñaar fukki nit ak jëm kaw ñu am at bu ñu lay laaj bu weesoo at woowu ñu fexe daal di lay jox formation bi war parce que dañ leen war a former aussi am na réew yoo xam ne du ku n'importe qui mooy dawal bus dafa war a am formation am ay at yu ñu ko laaj et loolu mun naa am ci réew mi kon yëf bi du amal conseil interministériel yëf bi mooy lu ne kët lu ne jon na koy faj mooy jël ay décision yoo xam ne dana dalal xelu ñiy dugg ci auto yi parce que du ñëpp ñoo am possibilité am seen oto yi bopp waaye ñiy dugg ci oto yi ñu rassurer leen ci ay mesure ci tali bi rassurer leen ci ay mesures ci li nga xam ne moom moo di oto bi ka koy dawal ak dawalin bi loolu yëpp daf ci am solo mais lii ma gis daal metti na foofu metti yam métti na ci xol waaye yàlla nañu ko suñu borom teggil teggil njaboot yi métit bi te ñi ci ñàkk seen bakkan suñu borom xare leen ci aljana yu gën a kawe ñi ci ami gaañu gaañu ñu ñaan suñu borom mu dimbali leen taxawu leen ba lii dal ci seen kaw mu wayaf lool ba ñu koy fàttaliku ëllëg maanaam mu jox leen wér yaram tabibi qaribun hal siqaamiya tasma'u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 ñaari bus bu ñu rombantee bu fekkee ne ci benn seconde nit xelam dem na ci leneen rek musiba mun na am parce que tali bi dafa xat six mètres la six mètres cinquante donc tali yi mun nañ koo yaatal gën caa néew mu dem trois voies loolu dana mun a dimbali nit ñi ci jafe-jafe yu ni mel parce que ci information yi ñu jot benn euh, bus bi pneu bi moo toj bi mu tojee ku ne xam na ne oto bu ndaw sax bu pneu bi tojee doo ko téye waxuma la ak bis bu yàpp juróom-ñaar fukki doomu aadama ak lu tax loolu musiba lay daal di kon ñu ngi ñaan ñu jël les mesures idoines pour que lii dootul amati comme disait l'autre plus jamais ça au Sénégal أراني إذا ما جئت يوما محمدا